conseil présidentiel ci biir région yi am na solo lool ngir mën a ñoŋal politique yi jaarale ko ci dinduna askan wi loole moo waraloon ci atum 2014 ci conseil des de délocalisé bi amoon ca Kédougou ñu sàkku fa ay investissement yu tollu ci 192 milliards 820 millions ci suñu ay koppar nguuru Sénégal engagé wu ngir samp ay projet yoo xam ne njëg bi dana toll ci 109 milliards 600 millions francs CFA suñu defee bilan bi ci jamono ji ñu tollu nguur gi amal na ay investissement ci diggante bi lu toll ci deux cent milliards ci biir diwaan boobee ay investissement yu jëm ci wàllum infrastructure protection sociale ci dundinu doomu aadama yi ak itam ngir gën a ñoŋal koom bi jëm ci wàllum càmm gi ak mbéy mi ak itam exploitation minier waaye nag investissement yooyu teewul ba léegi ñuy saytu ay jafe-jafe yu bëri ci biir Kédougou lu ci mel ni ñàkkum courant bi nga xam ne nemmeeku nañ ko bokk itam exploitation or bi donte sax ñii di ANSD ñu nga xamal ne Sénégal li muy gën di exporter or la te or bi nag li ci ëpp mu ngi jóge ca Sabadola teewul askan wi nga xam ne ñu ngi dund ci zone yooyee nga xam ne fa la ñuy exploiter or bi ñu ngi dund ay jafe-jafe yu metti kii di président Macky Sall nag di xamle ne dina gën a saytuwaat ndaw yi ba tax na muy woo entreprise yi ñu gën a ñoŋal lëkkaloo bi ak nguur gi ngir gën a yombal liggéey bi ci ñii di ndaw ñi ndax nag Kédougou dafa bokk bokk ci région yi nga xam ne ñoo ëpp ci lu ñuy amal ay ndaw yi nga xam ne dañuy dem ci mbëkk mi ba tax na njiitu réew mi bëgg amal ab programme spécial ngir xeex mbëkk mi jaarale ko nag ci région bi di Kédougou nga xam ne daf ko bëgg def ab pôle exceptionnel ci wàllum développement loole waral ci conseil présidentiel atum 2023 bile bañ ca génne kii di président de la république di xamle ne danañu amal lu toll ci 600 milliards ci francs CFA ci ay investissement ci biir at enveloppe boobee nag ndaw yi moom ci lu toll ci deux cent milliards yi nga xam ne dana jëm ci wàllum créer ay emploi ak itam formation professionnelle